mbokk yi di mbokk yi jullit yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala ak ki mbaaxam la ñu ama tee jotaay fii ci safina di safina tv nekk fii ci scat urbam ci barab bu tedd bu sell bi ñu duppe sunu maam Maulana Cheikh Alhaaj Umar radiallahu taala di ñaan gannaaw ba ñu ziyaara ñaanal sunu kilifa gu tedd gu baax gi fii di imaam El Hadji Cerno Hamid Yero Ousmane Baan ci ay xalaatam yu sell yi jur yi ñu fi fekk yépp muy daara ji muy zawiye bi muy Safina FM muy Safina TV muy Safina Hajj muy poste de santé yépp bu ci nekk nekk njëriñ loo xam ni dafay dellu ci jaamu yàlla yàlla ci mbaaxam yàlla na ko ko nangul تبولن نانغول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ديكو نيو ديكو زيار ديكو نيانيت مو جوتالل نو سونو زيار تي كليفا غو تيد غو باخ غو سل غتيلوغا با تيانو بشير منتدى دها شيخ الحاج عمر yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ko ay ñaanam ci ñun nangul ñu sunuy ñaan ci moom nangul nu sunu cofeel ci moom nangul nu sunu doon di njaboot ci moom bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa tey ci kàttanu ñu war waxtaane waxtaanu fàttalanteeg layante biir ci kilifa gu tedd gu ñépp bokk muy sayid cheikh ahmed tidiane si al maktuumu radiyallahu taala anhu moom laa daan dàkkantale Je commençant tout doux, di wax celui qui se fatigue n'importe où il se trouve pour le bonheur et la prospérité de l'homme suis celui qui ne garde aucune haine pour l'homme ni mépris aucun pour le pauvre son courage son intelligence et sa culture qui ne seront jamais oblitérées ñu ne ma koo koy kan ma ni mooy digne héritier de son illustre homonyme le grand Aboul Abbas ñu tudde ko barzaxul maktum taajul arifina sultaanul awliya mu nekk di nitu yàlla boo xam ni mag ñi fekke ku ci mel ni baayam di góoru yàlla ga di borom bi jaawi leeri yàlla ya maam cheikh alhaaji abdul aziz radiallahu taala anhu bokk na ci ñi wax ni sëñ cheikh dafa indaale turam li tax ma ni bokk na ci ñi ko wax dama fekke ba mu koy wax maa ngi fàttaliku ziar général la woon ca Tiwaawan maam Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz radiyallahu taala anhu ñëw ca saalu Serigne Babacar Sy ba toog sëñ Mouhamadul Mansour radiyallahu taala anhu mi ngi ci wetam sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu taala anhu mi ngi ci wetam ñu séq ko ñoom ñaar sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amin radiyallahu taala anhu mi ngi taxaw ci booru canapé bi góor gi tafsir mbooj yàlla dolli ca moom leer kiy ngërëm a kiy njëggal ma nga taxaw man maa taxawoon ci wetu xaaj tafsir mbooj ñu dend ak sëriñ Abdul Aziz keroog yàlla may na ma ma fekke loola teewe fa noona keroog laa dégg maam xaaja Abdul Aziz radiyallahu taala anhu di ko wax ñu ko ba may ziyaar si sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu ma ëgsi mu xamal ma ni ma am na de gan gu fi yàlla indi soxna si am na gan gu góor soxna Sukan radiyallahu taala anha maam xaaji Abdul Aziz nee na bi mu ne gan gu góor nee na ma ne ka kooku de xanaa maa moom sama cër la ndax sëñ Mansour maam xaaji Mansour seddu na tudde nga ko sëñ Mansour kii ci topp di rakkam xanaa maa ko moom de nee na sëñ kër Luka mën nga bañ a gaawtu de demal nga xool ko nax dafa mel ni dafa indaale turam maam Hadji Abdoul Aziz nee na bi ma ñëwee ba yëkkati ko xool ko nee na gis naa ni dafa indaale turam loolu ba mu koy wax ca sàllu sëñ Babacar maa nga fa woon suñ cheikh radiallahu taala anhu ni ko ba may sàngaat sa mbàjj ma xaw ma sa mant ba benn la ci ñaar yooyu suñ cheikh ni ko ba ma koy sàngaat yëg naa ko loola di kàddu yooyu ba muy jib kenn nettaliwuma maa teew saal baa nga fees dell dëkk baa yépp a nga fees dell ndax ziar général la woon loolu delloo ñu ca lama déggoon sunu baay bu baax ba baay alxaaji mbay doon da mbay yàlla na ko yàlla dolli leer ak kiy ngërëm ak kiy njëggal indi loon nu ko bés ci wàllu sayid cheikh ahmed tidiane sel maktoum radiallahu taala anhu sunu maam ju tedd ja di maam alxaaji abdul hamid kan radiallahu taala anhu ba mu gisee ak maam sëjël xaaj malik si alayhi ridal malik dafa naa ci puut la woon nee na ca la ñu waxtaane ci jël maam soxna sukan radiallahu taala anha dénk ko maam sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu maam Soxna Sukan maam Maramba di yaayam maam Maramba maam Selbe di yaayam ñu wax ni man bokk na ci li may doole sant yàlla cofeel gi yàlla dogal ma sopp ko Serigne Cheikh radiallahu taala anhu mën naa wax li dama ko judduwaale ndax dama juddu fekk ñi ma jur sopp ko sama yaay maam sëriñ kër Si moo ko may sam ca Tiwaawan moom lañ ko bàyyee la woon kii sama baay taawloog moom ñu di ko wax soxna gàmmu géey sëñ xasan géey doon ko denc radiyallahu taala anhu soxna gàmmu Gueye moomu sam bàjjen biñ ko tuddee mooy yaayu Cheikh Tidiane Diop yal na ko yàlla dolli leer ak yi ngërëm ma ñu xamoon ca daaray Kocc Pape Diop Diallo Xaaji Muxtaar Diop di baayam góor gu bëggoon alquran maa ngi fàttaliku Cheikh Tidiane jóob moomu nekkoon ci daaray Kocc ku teel a wattu alquran la bàyyi ma ko jàngal ba mu wàcce alquran ku yéex a dugg école française la ndax daara ja moom la tuddee sama mag boobu nga xam ne moom la sama papa taawloo ak sama yaay moom gàmmu moomu ak sëñ Pam Malick si radiyallahu taala anhu ñoo bokk benn bés bu ñu gënee àdduna wax nañ ma ni sama papa dafa ne woon du ma jëkk tudd sëñ Babacar dafa xaar ñu tudd sëñ Pam Malick ba pare ñu ñëw tuddal ko sama mag boobu yépp ca Tiwaawan la benn mbedd mi rekk fee di kër sëñ kër nga avancé tuuti jot kër ga ca wetu càmmoñ boo paase kër alaaji Amar bu yogee romb kër alimatu nga yéen nga cay teg mooy sama kër maam sëñ Babacar nee na ñu dem na dina daana dem tool ba tàyyi wàcc ci buntu kër ga ci kaw fas wi nuyontee ak sama ñoom maam sama maam góor gi Mamar Guèye moo jur sama yaay rakkam di maam Yoro Guèye la baayam jabeer joxoon Seydil Hadj Malick mu ànd ak moom ca njaar lekk barab ya mu dem Seydil Hadj Malick alayhi ridal Malick bi bi ñëw Tiwaawan sama nijaay El Hadj Boubacar Guèye yàlla na yàlla dolli leer ak kii ngërëm moom moog Serigne Cheikh benn la ñu woon soppoon lool moom it Serigne Cheikh wax na ma ni. بسجل حاج مالك عليه رداء المالك دينيو تياوان فلا فك سنو مام جبل بومو سنو مام جبل ميغي سانتي تياوان 1611 اتو 1611 لا سانتي تياوان بي مام حاج مالك نيه فلا كو فك مو جيل مام يورو جوخكو كون من ناني تيوفيل غيما ام تي موم دا مكو جودو واليه sama mak di ki ma topp ci mom nga xamni ni sama mag cheikh tidiane gueye serigne cheikh ahmed tidiane sel al maktoum lako sama bàyyi tuddé kon kolëre ga yàgg na sëñ mansour si moko tudd si kon kolëre ga yàgg na moo def naa ko ca benn way naan ci serigne cheikh nan motax ci fel gi am ci mom jënd ko feyi te ñanaaw du ci moom marjaan la suñ cheikh laa way loolu cofeel gi ma am ci moom jën du ko feey te ñanaaw du naaw li ci moom marjaan la dem sax ba naan cere ji fi mbay siy mooñ ba dem ku ci réer ba suur gërëmee ko cheikh mi ko tee xajam ci yitteem la ku mu neex nga mbuum ku ci baaso day baaseel tereer ku ci xiif ba teer umu xayri say siimal la soxna umu xayri moo nekkoon ci waa ñu ba Babacar loolu fa tabaarakal ahsanul xaaliqiina ma judduwaale cofeel googu ci moom samay wajur tabaarakallaahu teel ko jublu loolu ma dégg nag ci alxaaji mbay doon da mbay mu nettali xissa boo xam ni tamit mën naa ne la ma booleeg moom it foofa it dégg naa fa sama maam ak maamam moom sëñ Cheikh euh, sama maam bi jur sama yaay di yaayam soxna ndaw ñang ca ka ka jur mooy Béri Seck Béri Seck Madun Maante Njaaki Seck moo ko bokk ak Xaaji Malick Sarr Seck ca Ndar ndey ak baay Xaaji Malick Sarr Seck mooy ron daara ji mag ja ca Ndar bi tafsir Maba dee dem jihaad maam Malick Sarr wax maam Madoun mi jur sama yaayu yaay ne ko na dem ànd ak mabba ci jihaad ja moom xaaji Malick saar Seck mu des ci daara ji ci ndar jàngal na fa ñu bari Madoun mooma jur sama yaayu yaay ba mabba daanoo la daanu ci wetam kon ba tey kóllëre ga foofa ma ni fa ma toppee sori na waaw imam Moussa lan moo la gën a marqué ci Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu boo ma laajee li ma gën a marqué ci moom dinaa la wax ni yi ma gën a marqué sax ndax du benn du ñaar بيمي جيل ويردو صلاة الفاتح عندك سرين محمد المصطفى سي ميدي دومم سنو ريسبونسابل مورال بو دائرة المسترشدين والمسترشدات عندك الأستاذ حاجي خليفة مباي بباي الحاجي مباي دون مباي يو عندن دوك مومك سرين مصطفى موتو بطوران ديو بواحكو سنشيخ mu dalal nu ci këram gi ci relais yoor yooru ajjuma weelu koor ci lañu joxe salaatul fatih ñun ñett bés boobu marqué na ma lool ndax ya ca ajoog na mu demee xoowaat nañu fi it ñu amaat moom jotaay ci këram gi ci mangi relais ba tey Xaaji Malick Cissé jinga ma nga fa woon yal na yàlla doolu ci moom wér Baye Omar Samba ma nga fa woon ca jotaay ba yàlla dool ci am leer kii jéggal sëñ Samba Cissé di rakku Xaaji Malick Cissé ma nga fa woon yal na yàlla doolu ko wér président Mbacke yàlla doolu ko wér Alxaaji Abdoul Aziz Seck suñu wóllëre bu baax ba ma nga fa woon yàlla yàlla dolli ci moom leer ki yërmandeem sëñ musaa Fall doomu xaaji Babacar Fall RRA ca Tivaouane kenn la ci sëñ Cheikh musaa moom it ma nga fa woon yàlla na yàlla dolli ci moom wér ñun ñii de bokk nañu toog ak moom te moo ñu woowal boppam ci këram gi ci relais jotaay boobu it marqué na ma lool ndax ba mu waxee ak ñun la muy wax ak ñun dix ci suba ba presque seize ba ñuy tàggoo te mu nuy ñaanal di ñuy yeesal te président Mbacke Fall ko bu ñu sañoon woy wi nga woy sa turandoo ci prison bi fa ilayka yabna mahammadin naadaani chiyamun tuxaqiqu jawhara al insaani bu ñu sañoon nga may ñu ci ndiggal fu ñu paree suñuy awraat ñu boole ko ci suñuy ñaan mun ne ah Maodo si day Maodo si bàyyi Maodo si bu Seex Alxaaji Abdul Aziz radiyallaahu taala mu ne ah Maodo si de nee na ma Cheikh Alxaaji Abdul Aziz si nee na ko Cheikh de bi muy woy woy wii mos na li mag ñi mos <laughs> nee na ma ne ko ah, ne ko ñoom kay ñoo mos waaye <laughs> keroog ba ñuy ñaan te di yeeslu Baye Omar jël kurus yépp jóor ko nii ci loxoom ñaare loxoom yi kurus yaa ngi jàllu ci loxoom yàlla dogal keroog man jotuma woon yóbbu sama kurus ma tàllal nii rek sama loxo waaye ba mu ñaanee ñaanam googu la ñaana ñaana ñaan ba ëf des ca xam nga bariwoon woon nañu mu wëlbatiku ci man jàkkaarloog man daal di may jox nii ñaari loxo yi jóore kurus yi ni ma yow nag ma jox la sa xaas te nga bàyyi xel ci sa bopp <clears throat> loolu it marqué na ma lool loolu it na ma lool moo tax man la neel yi ma marqué ci moom ba ñu génnee ma ne waaw xaaji Malick Cissé xaas mooy lan mu ne ma mooy lépp rek <laughs> waaye kan mooy Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu taala anhu ñu wax ni Baye Mbaye Donde indi ko ci xisam ba jële ko fu wérit ni tafsir ba moom la woon ak Abdou Ba ak Mamou Ndëri ñoom ñetti ñi la woon Maba amoon jihaad ja xare ba bi yàlla dogalee mu attaqué Buur xare ba metti mooy li ma wax léegi nii ba Maba ñu jam ko مدن مومودي سما مامتي باتام لا دامو ني ما بناك واخ اك عبدوبا ركم نيكو واخكو واخ غوكاي خمال دال في لي جار وي جي بوروم واي ba yàlla dogalee cee songo mu njëkk ma mu dàq buur siin ba jël selbe selbe ndoofeen nan la ko màbba jële mooy ba mu dàqee buur siin gañe xare ba lingeer yi buur siin ya ñu tëjoon ca tata ja maam Selbé ca la woon ndax buur siin moo ko doon denc keroog ca guddi ga la ñu wax ni màbba bi mu tëddee ca guddi ga gis mbooleem magi tariqa bi yépp magi tariqa bi nag danga naan yonent bi cheikh ba ci maw cheikh al mouhamadul ghali mawlaana cheikh alhaaj Umar ponkal yooyu le ma ba gis ponkali tariqa bi yépp ñu ni ko sa tata ji tëj nga ci koo xam ni yoon wii nga tënku di yoonu tariqa cheikh nanguwul nga tëj ko danga koy génne ndax sëtam dana dooni boroom cër bu réy ci tariqa bii di tariqa cheikh surtout lingeer boobu nga tëj boo bëggee xam kan la nag bu na nga taxaw ci buntu tata ji laaj ki ci sëy ak buur siin fukki at ak juróom te amuñu doom kan la ka lay tontu la ko tafsir maba ci gis gu wér mu xëy laaj buntu tata ja ni kan moo ci sëy ak buur seen fukki at ak juróom taamuñu doom maam selbe ni ko man la mu ne ko yoon wi ma tënku mayatuma ma tëj la da génn da génn mu ne ko ah, dëgg la dinaa la nangul li nga wax waaye ma ñu sama ngor mayu ma ma génn man kenn te sama moroomu lingéer yi génnuñu ñëpp ngay génn mu ne ko anañu mu ne ko ñu ngi nii ñu nekk fukki lingeer ak benn xaw ma ñaar mel noonu daal mu ne ko na ñépp génn tafsir ma ba ni na ñëpp génn ñépp génn nag mu berndeel leen ñoom ñëpp rende ay nag dafa leen di teraanga ba jant di laataa so ca tàkkusaan la wax ni nañ ko may maam selbe maanaam ba yooyu xew-xew yi daal ba mu jàllee dama xamatul kuy wax da ngay wax lu wér waaye daal ba xew-xew yee jàllee daal la wax ni nañ ko may maam selbe ñu may ko maam selbe moom tafsir maba waaye xare ba mu mujj dem nag ba daanu fa mudun moomu mu wax daanu ca wetam la wax Abdou duba rakkam ni ko Selbé moomu bokkoon ci lingeer ya te ma ñaanoon ko dafa am lu ma mag ñi joxoñoon ci moom te maag moom jotuñu am doom bu sama bakken desee ci lii ma wuy ju sama borom bul bàyyi Selbé keneen di ko jël jël ko yow ab duba moo tax bi tafsir Maba nelawee nag ñu jël maam Selbe jox ko maam Abdou Ba maam ab Ba di rakk tafsir mu denc Selbe ginnaaw Maba am ca ak moom doom bu jigéen bu ñu wax Maram Ba moom lañ naan Maram Selbe maram ba momu ñu nan maram selbe nak momit ba mo magge ñu dénk ko goru yàlla gu ñuy wax El Hadji abdul Hamid Kane ca Kawlax ñépp xamé won ko ak Mawlana Cheikh El Hadji Umar al Fuuti yu radiyallahu taala anhu Cheikh Omar est-ce que sax du moo leen jox ñoom ñépp salaatul fatiha bañ ko ko dénkee mu am ca ak moom sono astukan mu gane aduna atu 1900 mok mam alaji mansour ño bokk année bu ñu gane aduna radiyallahu taala am ca yit mam alhaji ousmane kan radiallahu taala anhu am ca it maam Cheikh Kan radiallahu taala anhu ñu jël maam Astu Kan radiallahu taala anha dénk ko maam Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu mu am ca ak moom sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si sëriñ Abdoul Aziz si sëriñ Pape Malick si ginnaaw soxna umul xeere ma ne woon ci waañ ma ak soxna Zeyna boog fa tabaarakallahu defe naa ak soxna Faat si yaakaar naa ni moom la ñu ci ca Kawlax ca wetu maamam am Abdul Hamid ak soxna Aminta mi fi deset ak ñun yal yalla doli dolli ko wër te dollee guddal fanam mom lañu denkun dénkoon Muniru Saar radiyallahu taala mam asukan momu nak am sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si maktoum ndakati sëñ Cheikh moy joxogn bobu magna joxognon maba ne ko tëj nga ci sa tata ci lingeer yi koo xam ni yoon wi nga tënku mayu la nga tëj ko ndax sëtam dana dooni dara ci tariqa bi looloo tax sëriñ Cheikh nga daan dégg mu daan wax ni radiallahu taala anhu ah su ma xaaroon ba tol nii de ñu ne ma yaa doon mag ñi ma gedd ko dama koy mën a judduwaale mbaa ma bàyyi radiyallahu taala anhu wax ko ca fuwaar ba waxin wu gàtt li sirri maa yi mu jeex sirri maa yi waxit ci lu wér di wane fierté gi mu am ci gan ak àddunaam wala qad wulittu wari ridan bi wiladati sëñ Babacar ndigalu cheikh la ci jot ni ko na ma ko tudde wali anna ni summitu min amrin bihi kon fa jadal ilahu fatan bihi samban bi kooku nangu ndigali te mooy sëñ Babacar ba tudde ma cheikh yàlla na ko yàlla fay moo tax cëram radiyallahu taala anhu daf ko indaale dégg naa ci xaaji mbay doon da mbay yal na yàlla dolli leere mu nettali ba sëriñ cheikh te loolu sëñ cheikh a nettali mbay doon da leere la ko noonu nii sëñ Babacar toog na fi bés woote ñépp ñëw mu ñen na ma ñépp dellu kursi tolloon ci xaal boobu nee nañu keroog dañu ëmb kurus yu bari teg ci wetam ñu lenn la leen di xamal de dootuma magu kenn dootuma bàyyu kenn dootuma nijaayu kenn li ma fi Maodo toog loo woon fi lay tooge ñépp nañ ñoo jaayeen nag man ci boobu cadre di taalibe may sëriñ bi ñëpp ñëw ak moom ci biir jaayante booba sëriñ Cheikh nee gisuma ca nee na man demuma nee na ba ñépp jëlaatee seen kurus ba mu ñaan nee na ma ñëw mu ne ma mu ma ñëw mu ne ma lu tax gisuma la mane ko sama yaay nee bi ma ko nee sama yaay mu xam la ma ko wax nee na mu ni baax na sëñ Cheikh nee na yemuma ca ma jël sama kurus ñëw jox ko ko dañ ko am sa kurus mu ne ma lii nag ma ne ko ma doge ci yow moo ma gënal gën daal sama xel may doge feneen ci keneen ndax tariqa bi nanguwul ñàkk jaayanteeg saaxibul waqt te nii ma la ko defalee du ma ko defal keneen sa gannaaw te su ma ko defalul ka muy dooni ëllëg damay doge ca moom comme naruma ko nag ma doge ci yow laa tànn moo tax ma jola su gurus ma doge ci yow bañoo doge ci keneen ndax du ma ko defal keneen sa gannaaw <laughs> la sëñ Babacar ne ma cheikh téyel sa kurus sama gannaaw ku la ni may sa sëriñ dee nee ma téyewaat sama kurus loolooy li waral ba sëñ Babacar nelawee nee na biñ ko wàccee ca fa mu tëdd tey ca xabrom bu tedd ba mag sëñ Mouhamadul Mansour رضوان الله عليهم اجمعين بنيو واتشي سوف تي كاوم انا مسجي. يا ابونا ابو بكر وان كان في القبر رضينا به شيخا الى اخر الدهر doonte sama baay bii di sama sëriñ kër Si dañ ko wàcc ci bàmmeel wàcc suuf ci kawam jal ko mooy sama sëriñ man ba ba ma koy fekki wax naa ni ki jëkk jaayanteeg sëriñ Cheikh ci loolu mooy magam ju baax ju tedd ji di bàyyi Cheikh Sidi Mouhamadul Mansour Sy ndax wax nañu ni bés boobale ku ñu jox kàddu ca mag ña jànnaxa nga sa xol fees na dem nga ba xamatoo lay wax kàddu sax mënoo ko jël xaaji mbay doon da mbay bu daan taalif bari na ci li muy taalif day fekk lu am ba pare mu taalif ca woy ko mooy waaye woowu ngay dégg mu naan ñu joxe sëñ Cheikh dafa la mu jëkk wax mooy na ñëpp sant yàlla ñëpp ni alhamdulillahi rabbil alamin ñëpp sant yàlla mu ne na ko ñëpp waxaat ñëpp waxaat ko mu ne ko ñëpp waxaat ñépp waxaat mu teg ca yamu cay teg loola ak diskuur ba yépp mbay doon doo ko way Seydi Mbay Sy ba mu làqoo Cheikh Tidiane si dafa toog wax ne nan dellu ni alhamdulillah yàlla mi xëy tànn Mbay si def ko xaw soo Maodo doyloo ko ba xëy dénk Mbay Sy ñooñu kaw ak ñu suuf ak nit ñi tey discours ba lay way doodo di way noonu Seydi Mbay fab ñaari tànkam teg ci sunna ki mayam fonk Maodo ki waxam samp ko ba wii ji ko tey kon te ñun ñii di njabootam li nu war moo di taxaw ànd sampaat Seydi Mbay fonk ko ba wii ji ko tey bu ñu xuloo bu ñu xeex bàyyi ku wax doy mu di wax te ñu jëf te bañ a soow soow dëgg réer nan meru Cheikhu Tidiane daldi wax gaa ñu ni leen lépp lu mbay digle woon dañ dëgëraat jàpp ci bañ yox yox yi tey ku di mag ak ku di ndaw na ñëpp di soldaar ne ci mbay di ko maajal ne ca service ba mu nekkoon bañ a fay indi juróomam yo si di mbay si ba mu ne nelawee Cheikh Tidiane si dafa toog indi fàttali juróomam ya mu daan bank loxoom di ca wax luy dawe coonoom gaa yi lii an ci diw yi sunu diine sunu tariqa ak sunuy daayira tey ak sunuy métier ak sunu yoonu Tiwaawan mu ni ndaxte lii moo di juróomam ya mu daan bank loxoom di ca wax luy dawe coonoom gaa yi lii nañ ci di wéy Cheikh Geesu man soor nag sóora ree dal di xanaa xusli ya daan jaayante baa mais doon doo ko way de na mbir ma dema woon la way cheikh geesu Mansour sóoraree daal ni xanaa xuus li yada am sama loxo gi jàppal cheikh ni waaw loxo tey ak loxo jàppante ci mbéy mu ne foofa nag soppa mbéy sa yi ci biir tànt ba ñépp daal di taxaw loxo yaa ngay róofaloo di jaay ku ne di yox sama rom loxo mel ni keroog mbéy see taxaw fekk waaw waaw jëmm yi waaye jëf jàng fa tey لولو فتبارك الله امنا تيت مام تيانو سعيد نور رضي الله تعالى عنه سي شيخ نانا امنا بن داجي بونو امون تي كير بيتي كيرم بي تي بولوار دو لا ريبوبليك مام شيخ الحاج عبد الله زنگفون مام تيانو سعيد نيانغا بري وين أنا نكلو كتيرنو سيندك دفو جكنوكو يا صاحب الوقت موتاح ديسان بايتيرنو حبيب تال مغو بايتيرنو بشير صاحب الوقت رك انا بخصنشا يا صاحب الوقت أنت سين شيخ فتبارك الله سنو خالقنا نيوغي سانتي يالا تي نيو يالا بوالك موم